Euh, sëñ bi euh, sànq laaj naa laaj bu am solo est-ce que tey jii yéen euh, parce que après dinaa ñëw si l'ensemble des mara d'Ousmane Sonko maanaam yéen yéen ak ñoom Mara Niass ak ñooñu ma xam yeneen déggoo si leen loo xam ni itam yéen koy biral jëm si wàllu sarax est-ce que yéen tey jii mën ngeen xam kan moo defoon liggéey bu bon jooju noonu est-ce que war nañu ko mën a xam cest à paa pas pas si dugg mais ki leen ko defloo. c'est-à-dire euh, sëñ bi sëñ euh, sëriñ bi euh, bi def lu nu mel. Hmm. waaw sëriñ bi nga xam ne moo def lu nu mel nag moom. charlatan yi. Hmm. nekkul nekkul nekkul sëriñ boo xam ne mi ngi ci biir réew mi. nekkul ci biir réew mi. Inde la jógee wax naa la ne am na nit ku xonq gu rax ci seen biir. Hmm, mooy sëñ bi. koo xam ne col ga muy sol koo xam ne col ga muy sol. col ga col ga muy sol nekkul col goo xam ne si ne sunu col la ñun. sunu col la ñun. day day kaalaw day kaalaw foo ko fekk waaye kaala bu du wàcc day nekk daa lu mel ne musóor du lu mel ne lu mel ne musóor euh, du xale itam mag la jëmm jëmm ju gàtt la jëmm jëmm ju gàtt la itam moom moom nag ànd na ko ñett nit te ba muy def mbir ma waaw waaye nag loolu lépp loolu lépp teewul dogaluk yalla mo and ca mbirum xam-xam xam-xam bu ñuul bobu ñu doon def bama gisee mbir ma rek la taw wo ñama wara wo ne len nañ fexé def sarax yi ñetti sa ñetti ñetti ñetti gilem yu bokul mero yi. donc donc ko gisee bo way nak bo gisee ñu bari bari xawa tekkel xawa dal ah euh, mbir ma amna lo xamne bu amee mel ne dogaluk yalla ba and na ci ndax mbir bu su waré am su waré am te dogaluk yalla waccul ñu ngi koy sant ñuy gaaw def ko. waaye su dogal ba naree naree am rek ñu ngi koy sant dañ koy négliger négliger nañ ko nag ba liy xew xew na. waaye nag wolof dafay leen ne bu ndox tuuroo an bàq des am ba duñ fi am ay bàq. alors dañuy dañuy gën a rooti ro gën a rooti mooy gën a nàmm suñu xalima gën a nàmm suñu kurus gëna a nàmm suñu xel ci bunt yi ñuy jaar suñu borom daan ko ci ñaan yàlla mu duñu defal duñu bàyyi benn bunt te lu munu jaral incha allah bi ci kàttanu yàlla lu munu jaral bu jaree ñu dugg xalwa ay yoon. danañ ko def insha allah rabbi lu bu ñu wane itam su ko sunu doole matee dinañ ko def suñ ko sunu sunu doole matewul danañ bu ñu jaree itam ñu jël sunu alal tayle ko su def def itam insha allah rabbi ci kàttan yàlla dinañ ko def alors sëñ bi est ce que yeneen lëkkaloo ak ñoom Mara Niass ak aussi ñenn si ay sëriñu Ousmane Sonko peut être ngeen war a taxaw si benn kàddu ak ay ñaan est ce que des fois lëkkaloo mi ngi am pour daal taxaw Ousmane Sonko. bu bu bu am. lëkkaloo amul. lëkkaloo amul lu tax. lëkkaloo wuñ ak kenn. loo ma tax lëkkaloo amul ndax lëkkaloo amul amul ma. parce que yéen ñi sëriñ Ousmane Sonko yow ak Mara Niass mu neen wax ni euh, yéen a gën a fës si Ousmane Sonko lu moo tax lëkkaloo boobu amul ak ñeneen ñi nga xam ni tam peut-être. xam nga taxaw neen peut-être pour sàmm ko. d'accord bu fekkee lëkkaloo amul man li may def laa xam te li may def man la ak Ousmane Sonko ak ñi ko jege. donc am na loo xam ne nag man waxuma ngir bëgg dara waxuma ngir soxla dara damay wax ngir. donc ñeneen ñi dañuy wax peut-être pour soxla dara wala comme pour dara. non non non déedéet déedéet déedéet. waxuma la waxuma la ko de dangay ngay da ngay da yem ci li ma la wax. Hmm. sam xel mooy jëm fa muy jëm waaye hmm. man li ma la wax su fekkee dégg nga ko ni ma la ko waxee. Hmm. doo jël sama xel yóbbu ko fenn. ok kon wa kon kon euh, wax wax wax wax neex na waaye dégg da koo dàq. waaw dëgg la euh, man li ma li may def ci sama diggante ak Ousmane Sonko. man jaar naa ci moom xam na ko yàlla xam na ña fekk ñiy fekke jotaay yi xam nañu. Hmm. ñiy dox sama diggante ak moom itam di ma wax ma di leen wax xam nañu waaye dafa am loo xam ne mbir moo xam ne bu amee li nga wax moo ci nekk war nañu àndandoo boole sunu lépp ngir dimbali ki nga xam ne mooy Ousmane Sonko. Hmm. mu jóge ci jafe-jafe yi mu nekk. tollatuñ foo xam ne euh, jamonoy wax la jamonoy jëf lañ toll. mais sëñ bi est-ce que jéem ngeen ko. est-ce que. waaw ñoo ngi ci ñoo ngi ci fi mu ne nii fii may wax ak yow nii ñoo ngi ci. pour tàmbali nañ ko bu yàgg. pour lëkkaloo pour lëkkaloo ak peut-être yow ak sax ngeen bokkandoo loo xam ni itam koy birelandoo. dëgg la jotuñ ci jotuñ ci waxtaan nag man ak moom. kenn jéem jotuñ ci waxtaan ak moom ndax. ah. ay dox seen diggante ñaar euh, Moustapha peut-être pour ngeen euh, jéem a taxaw. déedéet déedéet pour ma ne ko pour ma ne ko nañ bokk nañ bokk nga def lii ma def lii. wala dafa lii ma def lii combat xeex bi. dama ah kay xeex bi moom ñu ngi ko ñu ngi bokk xeex bi waaye xëy na euh, maanaam stratégie yi ñuy xeexee moo moo moo moo bokkul. Hmm. wala itam xeexeel yi moo bokkul. Hmm. waaye kenn ku ci ne wàll ga nga féete yaa nga cay xeex ngir yàlla def ndam. ok xeex bi pour libérer Ousmane Sonko alors. Euh, sëñ bi ak ak ak ku ñu jàppandoog moom alors sëñ bi euh, ba tey euh, nga nekk li nga xam ne moo di sëriñu Ousmane Sonko alors te ñu daal di ak benn nouvelle boo xam ni itam ñu ne depuis démb Ousmane Sonko dafa crise am benn crise d'asthme exactement alors. ñii naan dafa tawat ñii naan asthme bi da koo daaneel que ni waxoon ne sax moom dafa feebar balaa muy dugg dafa bëgg a gis ay médecin mais tout de d'abord est-ce que réellement Sonko dafa daal di tawat jamono ji si wàllu kaso ba. waaw d'accord euh, Ousmane moom wéerul Ousmane moom wéerul. ok Ousmane moom wéerul. Hmm. wéerul tey euh, dafa nekk nit koo xam ne dafay faral di fat day faral di fat kon dëgg la sax man bëgguma sax dugg ci yenn yi daal ndax. Hmm, hmm, mais seen ñu la si dugg surtout parce que. Euh, internet yi ñu la laaj internet yi ñu la laaj lan moo ko dal exactement lan moo ko dal seen moom mi ngi ci jàmmoo mi ngi ci jàmmoo. mais euh, euh, euh, instant bi li ñu jot a génn que ni dafa gis gis gis ay ay si ay médecin am allo. mi ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm bu baax <laughs> mi ngi ci mi ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm bu baax. sëñ bi Sonko day faral di fàtt. waaw Sonko mi ngi ci jàmm mi ngi ci jàmm bu baax xam nga xam nga mu ngi ci jàmm daal mi ngi ci jàmm daal dëgg la nag wérul. amna amna lu ci yaramam lo xamne soxlawul euh, ay yenn choona yi mu dal ci muy dal ci kawam. Hmm. muy dal ci kaw waaye waaye mom biñu koy japp ñi ko japp xam nañ ne xam ne xam nañ ne ko wërul yu bare bari xajul ci mom yu bare bari xajul ci mom deng nga ndax bo gisee doon na fi dem ay béréb ngir ngir ngir defar yaramam maase wu ñaari nga gis muy entraînement waye téwul amna lu ne ci mom lo xamne wërul te itam am na stress yoo xam ne buy dal ci doomu aadama euh, ak yenn yenn yenn torture yi. Hmm. ba yenn coono yi mën na dem ba nit ki euh, maanaam lenn lenn ci lenn ci yaramam di ko di ko di ko di ko yëg waaye li may xamal doomu adama yëpp mooy nag na na seen xel gën a gën a dal te ñuy dañ dañ gën a ñaan yàlla rek nañ gën a ñaan sunu borom rek nañ gën a ñaan sunu borom loolu daal laay laay sàkku. mais instant bii nii jamono ji euh, xel mën na dal si ma wala sëñ bi. ah waaye xel mën na man a dal ci moom li ñu li mu bëgg dana ko am. muy jiite la euh, si euh, euh, si wér-gu-yaramam xel est mën na dal. parce que fii nag mi bëgg a wëy naan li nga xam ne que moo di état de santé mi ngi dégradé wu peut-être mi ngi dégradé wu maanaam mi ngi xawal li na xam ne que moo di doy waar est-ce que jamono ji ak peut-être li nga gis xel mën a dal Sonko daal di génnaal si kaso bi ak jàmm. waaw xam nga dana génn kaso bi ak jàmm waaye bu fi génn hmm. dana ci génn génnaale ak ak yaram bu diis. yaram bu diis maanaam. waaw loolu moo waral yaram bu diis feebar feebar. feebar ban genre feebar la sëñ bi. loolu gis naa ko gis naa ko wax ko ñi ma ko wax ko wax ko ñi ma ko wax ko ñi ma ko war a wax. ban genre feebar lay génnaale. waaye waaye wér di yaram la xam nga nit doomu aadama itam yaram yaram la. ok. waaw yaram yaram yaram yaram la. yaram yaram la waaye nag alhamdulilah rabbil alamin yàlla baax na daal ndax hmm. bu ma waxee danañ xam fan laa waxee danañ ñu kaw ñu gaaw doga doganduma fa may waxe waaye nag euh, alhamdulilah rabbil alamin donc dafa am ñu leen topp seen tànk yi yéen sëriñ waaw dafa am ñu topp seen tànk <laughs> euh, déedéet déedéet déedéet yàlla baax na enseigne ah, bi yàlla dafa am ñu topp seen tànk ji déedéet xam nga dafa am doomu aadama yoo xam ne euh, dañu koy déglu dañ leen di déglu di xam di xam li ñuy wax ak fi ñuy waxee te itam waraf dafay léeb ne kuy tëru kuy teggi moo ci ay hmm. euh, am na lu ñuy mën a yëkkati loo xam ne bu fekkente bi ne ñi nga xam ne ñoo Ousmane Sonko bànnee xam ak wér-gi-yaramam ak euh, maanaam ak dundam hmm. ñor na leen ñooña dañuy dañuy kontaan bépp waaye ñi nga xam ne yàlla dogal na ñoo jafe-jafe Ousmane Sonko ak euh, ngir bakkanam des ci xottu gerte yitteel na leen wala itam ñu bëgg ngir toroxtaane yam yitteel na leen ñooñu dañuy sébile ndax li tax ñuy sébile mooy dañuy xam fan laay waxee ñu daw dem foofa waaye nag alhamdulilah rabbil alamin euh, na ci na xel yi dal te ñu xam ne euh, mbir mii nii mbir la moo xam ne yàlla dogal na lii xew xew na waaye fu nu mën a jëm rek euh, yàlla moom bari na sutura te itam sutura si yàlla lu yaata la inna rahmatallah xaribun minal muhsinin yërmande yàlla lu yaatu la te incha allah rabbi yàlla dana ko teg ci kawam te way muñ yi képp nag ñoo tax suñu borom wax loolu te mu muñkat la santkat la hmm. ndax euh, ginnaaw bi mbir mi xewee ba mu duggee ci kaso bi euh, dafa sant yàlla boroomam xam ne noppi na ci lépp moom li ko waroon def na ko hmm. xeexal na xeexal na peuple Sénégal ñépp ngir ngir ngir réew mi képp. bu doon bi lan moo nekkoon kàddu yu njëkk yu Ousmane Sonko yu mu yëkki yegg seem si prison bu Sébikotane kàddu yu njëkk ya. waaye kàddu yu njëkk ya kàddu yu sant la. ok kàddu yu sant yàlla la. Hmm. kàddu yu kàddu yu kàddu kàddu yi kàddu yi eh, maanaam euh, xamal ne ci xelam ne li ma waroon def naa ko man man man waat naa wàcc naa. ok li ma waroon def naa ko mooy sénégalais yi. man xeexal naa leen xeexalul boppam de Sénégal yi la xeexal. kàddu yooyu la ñëkk yi xeexal xeexal xeexal naa leen ngir mooy kàddu yu mujj yi mooy xeexal naa leen ne euh, kàddu yi mu njëkk a yëkkati foofu. mooy moom hmm. la mujjee moom la mujjee wax askan wi. ok wax ma ko wax ma ko. ma dem na ko waaw gisante ngeen loo xam ne. loo gisante guñ nag ba ba ma nekk ci kaso beeg léegi. mais wax na la ko ci téléphone. waaye wax na ma ko ci téléphone. ok mu nekk loo xam ne li wér te wóor mooy. Hmm. moom li ko war def na ko. li ko war def na ko mooy xeexal na peuple Sénégal léegi nag nee na peuple Sénégal ñoo des ci moom waxoon na ko avant delluwaat na waxaat ko. donc kàddu yooyu la dégg. kon Ousmane kon Ousmane yi mooy li ko war def na ko waat na wàcc na li ko war def na ko léegi nag gouverneur maanaam euh, peuple Sénégal ñoo des ci moom lépp lu waay mën a def moo xam moo xam moo xam moo xam euh, ci baatin nga koy xeex moo xam loo koy mën a def. ba yalla dogal mu génn fi mu nek nako ñepp ñëpp nak limu li xex doon Abu de jëmmam euh, bi Sonko fi kañ procès bi procès bi dina fa dina yàgg balaa ñuy amal procès am wala duñ egg si procès dina ko bayyi lan may xew procès dina am wala du am wala dina ko bayyi ci diggante bi Ousmane lay tax ñu man ko bayyi baatin kep la. ak waxtaan. donc japp nga ni waxtaan wala tax ñu mën ko bayyi incha allahu rabbi donc waruñu mën a egg si procès ànd ak ànd ak ànd ak baatin la ay procès déedéet déedéet man man man xalaatuma ay ay ay procès ay ay ay mbir mi nekkul lu woyof mbir mi ku ko woyofal yaa ko woyofal waaye nekkul lu nekkul lu woyof donc gisoo procès déedéet ay procès la déedéet man gisuma ay procès gisuma ay procès li ma gis mooy li ma gis mooy bu ñu bu ñu taxawul bu ñu taxawul bu ñu taxawul ci moom mii yàlla seetal na ko ne bu baatin taxawul dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk dëkk élection yi la lay génn fi mu nekk. Batin su taxawul dëgg. Sonko du bokk si élection présidentielle 2024 après élection yi lay génn ci kaso bi. sëñ bi Sonko dina dem wala du dem parce que waxoon naa la ko nga ne Sonko kenn du ko tey dem si élection. Euh, te itam euh, dina dem. Euh, situation bi fu mu toll nii ma la ko Sonko day dem wala Sonko du dem. si présidentielle 2024 ma ma taxawaat wax la ne la. Hmm. Sonko gisoon naa ne du dugg kaso. ok. lu ma jaraloo ne danaa ko ci def ngir du dugg kaso. ok yàlla tey dogal na dugg na ci kaso. Hmm. nguur ko itam wan nañ ma ne ci nguur la toog. Hmm. te nguur googu itam incha allah rabi ci kàttanu yàlla deux mille vingt quatre danañu jiite. Hmm. loolu itam lu ñu ma wan la ba fi may wax ak yow nii euh, listixaar bi mu mujjee def démb ci guddi wan nañ ma Sonko mu toog ci njoowaan loo xam ne ñi ngi koy joow. njoowaan maanaam. njoowaan loo xam ne ñi ngi koy joow ci nguur. wax ñu ko ci olof ñun xale yi. moy moy moy moy moy moy lo xamne lu lu mel ne saaru piliyaan la. magistrat magistrature yi. déedéet déedéet loo xam ne saaru lu mel pilian la. pilian pilian moy moy lo xamne dal daal mën na nekk siis wala yoy dal lo xamne ne mën na nekk siis bu bak bu mak bu rafet bu bakkanu. ok waye diggante Sonko ak nit ñi bari na lu fa jaar da ngay jaar ci ay buntu do rek ci mom fa muy fa ngay jaar ci mom itam da ngay jaar ci ay tak der. yoo xam ne ñu ngi koy garder. Hmm. loolu la man jàpp ma ne kaso bi la man nguur laa ko jàppee ndax man dafa doon laaj ba xam ndax Sonko dana toog ci nguur gi wala déet ñu wan ma lii. Euh, li nga gis dee. waaye mën na doon kaso bi ko mën nga doon nguur bi. de man gëwuma kaso bi man nguur gi laa gëm. ok waaye nag boo gisee ma ne la buñ ci jàppul dëgg dëgg dëgg dëgg ci wàllu baatin gannaaw élection yi lay génn mooy dama xam. Hmm. dama xam ci wàllu sulmaan yi muy xam-xam bu ñuul. xam bu ñuul te itam ma gis ne gouvernement xeex ak moom yombul li tax xeex ak gouvernement yombul. Sonko est-ce que nekkul erreur boobu la def Sonko est-ce que nekkul erreur boobu la def dugg xeex ak gouvernement bi.